Hmm. lu ma encaissé rek noo ëpp na xaama woon na démb bees doom lay wuy ma nii laa ko jógee wala ñëpp di commencé ma dugg si di leen ne ful fulaale sànneeku waaw waaw waaw kay fel felaale felaaleel felaaleel waaw felaaleel felaaleel waaw waaw kay tourneel taxawal sa loxo bee na yóotulee say bagage la yóotul yóotul seen numéro taat ay ay

yàlla jeexul nga doon dara mën a jëndal dimbali ma dimbali sa bopp dimbali sa ndey dégg nga li ma la wax topp xale yu jigéen yi mu naan la lijjantil tabaski bi ci ci xale yu góor xale yu góor yi ku leen lijjanti ñu lijjanti la boo leen businessee ñu business la boo leen dóoree dañuy fayu dégg nga li ma la wax ñoom jëluñu seen xaalis yi ngeen koy encaissé ñu leen di bàyyi ngeen ñibbi seen kër yi lekku ci kase naxu ci bay dañ lay yàpp de toogal fii tabaski yalla ko diglé waye waxul na ci kenn ray bopam wala di lepp wala di dugg di joxe sa bop wala di dugg ci naka su nonu buma amé jox la buma amul ñu muñ lo amul tay di ngi ko am ëlëk de nga lima la wax na nga meloon mel ko te bañ ma topal ñi diggante day am fulla ak fayda. aduna bi dara jan fi dara. waaw. nijaay waaw. buy diglé sa ngaay day fekk nga set wécc li nga nekké ci dëkk bi yëpp yëg naa ko. doxaan bu metti gi nga nekké mm. waye man mii jéeg pire maa koy lijjanti. ndey yaa ngi takk say kenkeer di mel sa xel daal di tabaski. ak a jekk da ngaa soxor dama ci amul dugg mais dëgg la da nga soxor kenkaay boo gisee da nga koy ah waaw xaas tabaski dafa mat foo ci tool. yow man sama tabaski gis nga paa bi nga xam ne ci taxawaay soli nag lépp moo si gën a ñàkk solo man kookoo ma dikk xar te si kooku laa ko yaakaar. kon ma ëppal njëriñ. amatoo loo wax. ci naka. xar nga xam ne doomu góor ci réew mi. boo nee xaa balaa ngaa dara ñu ne téeméeri junni ñaar fukki junni nga toog fi di am looy wax. man mosuma gis lii sama. man am naa xar dëgg la waaye noqas gay gay roof xar bi sax aw ma ko waxatuma la ak jeesneer waxatuma la ak cheveux daal ak ñoomin seen ak kenkaay yi ngay tudd aw ma ko de. yow plan A foo ko fekk fu ne du am na plan B. am sa plan B plan B bi da nga koy bàyyeeg man ndaxte sa plan A da nga koo diraaleeg sa toq ay gaaf. inni woo fi lu dul kuy màtte. kuy nelaw defoo ya, fi dara dara dara lu bax te lu wax na nga gaddu sa laamen la woddoo ko ban ne man yow jaaxal nga ma yow amo njeriña ah? bu may indi ñoo ñep yaakaar na ni may ñu sunu jàmm naan solution binta e dama laa soxlo woon eh dama maa soxla waaw boo ma soxlaa ni ngay ñew melni ak ba jadd sama kaw taxaw binta dama la soxlo won waxal ma ngi lay dem sama xaalis la bëgg nga fay mako ko sa xaalis moo ma koy laaj nee nga ma kay defal am problème donc may jaay tukki gu sori it moom la ne waa Makaang lay nuyu teel ni lii du ma ko jël. ah lii mënaluma lenn du ma ko jël. yaay tabaski bi dama soxla sama xaalis yaa ngi teg say cheveux naturel yu baax. eh te gis sa bët sol say cheveux de yow ba may teg cheveux di sol ay designer boobu xamaguma la na nga maanu samay mbir. ñàkk na teel ni te bu subaa nga ñëw jël si sa destu xaalis teel. dinaa ko yóbbu nag. voilà eh, eh, eh. bu subaa li des ci sama xaalis laa bëgg nga compter ko. ba ma teg ko sama numéro dox. dégg nga laajuma la. yaa sa yóoru. yow kii ñàkkul kersa. nijaay doo ma jox ma dem marché instant bi marché bi rëb na de. camion euh, soble yeeg pombiteer yëpp ñu ngi taxaw foofu te instant bi moom boo duggul tey rek suba incha allah day xat foog nga jox ñu moom la dugg ji moom marché bi fi nekk ne moom jox na torop annulé nag fépp la war a am annulé tabaski anu eh. gitu, er bi nak e dañ er ko waron annuler de cey cey suma doon yalla si yow ma la bëgg suma yolloon yalla billahi déglul li ma lay wax yow amo jom yow heure bi waro won fekk nga may xol face à face ni li mo wone sa ñak jom parce que yow taw yu bax yépp heure bi waddalal nañ sen bay kuy buñ ko mënul indil nañ ko saaku pombiteer wala saaku soble ni ko papa malu ko dimbali buñ ko mënu jënd nañu sax mbusu xoram bu juroomi dërëm ñew ni ko papa sapalé ko xarmé wala sapalé ko ni ci doom yi am fulla yi la wax de ak am fayda Nana dimbali sen bàyyi légui dang may pousse ni touti may ma air pousse ma yow ñewal ni pousse ma amo jom nak pousse ma dama lay door amo jom bon chaque jour ñu rejeté la léegi affaire bi moy lié fi ne xar mee ngeen di gis génn leen ci seen xel yéen ñëpp àdduna bu yàlla indee ay circonstances am dañ koy nangu ci alxuraan la ne ni booy tabaski xoolal xar ma pattul wa ilaa laagowul wa ilaa ay cëram waa mooy laago ye mooy këru wàññeeku wa ilaa am na feebar catastrophique waxuma la feebarantu de feebar catastrophique moo dal xar mi environnement kër gi salte bi jàpp ko mu am traumatisme crânien bil bi di daw boo ko tabaskee matul tabaski te nag xar mi dafa àndut ak sagoom fan yi dama koo gis muy def yeneen yoo xam ne du ju koy xar maanaam yuur gee tourné te ku ci dofoon ci ñun ñii doo bëgg dina bëgg ñu traité nañ faj xar mi ba mu wér tabaski weesul déwén ñu tabaskee ko waaw lii daal laa xalaat. waaw papa ni ñuy def xar mii lu wokkul buree wokk ko dërëm doju jotu ko tey jii bi may taal maa ko jox xob yi mu lekk ko fii. dara dalu ko. très bien très xamoo nu ñuy xonte xar xamu leen lu xar génn leen sama xar ngeen bañ xamu leen lu xar-xaroo ngeen jàpp xar yi xob yeeg salte yeeg ma lu ne ngeen jox ko ak kër gi environnement bi salte gi fi ne xar mi jàpp infection surtout yéen a ko teg seen bopp. <laughs> mais kan mooy ree nii. dina ree kii kan la yaa ree. Modou Mbaye lan la. waa papa ni ñuy def léegi. jàpp ci yàlla. yow ma ne la kii waxagul soxlaam. Hmm? ni xam mi dara dalu ko. <laughs> Eh, Modou Mbaye eh, eh, eh. yaa yor réer nag leen laa leen fii lu nee ngi fi biir du fenn bu ñu sombee kenn du ko xam bu ñu keccaxee kenn du ko xam bu ñu baxalee sunu yabooy kenn du ko xam peesee ngi fi teg sunu bii natt da yow yaa ñu sunu fourneau fii ak sunu grillage ku sa saxaar jolli sunu bos jolli nañ leen lakk nañ leen nañ leen peese. baba doo defar sa bopp doo solu doo rey xar laa ilaaha illallaah. doo def benn ngeen di wax yëpp dama koo waxul bu la yàlla rayoon nag. nañ leen peese teg sunu fourneau fii. Ah! lakk ni ñëpp. oncle oncle oncle. Modou Mbaye oncle jógal jógal. jógal oncle damaa yaakaar. jógal jógal xalaat ay eh, jógal. mais da ngay xalaat oncle. waaw sama xalaat sama yoon nag kay kay kay yéen li yéen yaakaar ngeen ne lii nii mën na wéy. yaay may ma keccax mbete njambaan ko fi xaar. keccax mbete njambaan doo lekk xaar. keccax mbete njambaan xanaa xanaa ñi ñi ñi njamaan sax. mu